soxna Diarra. kooku dafa mel ni sama sama sama doom bi la. sa doom bi wala ah? ah, oh, ok d'accord pour man sax ah, sama in internet bi nekk uh, Gambie la te muy wax tout le temps ni man maa yaayam waaw Serigne Ndiaye maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax. yaa ngi ci jàmm. sant yàlla bu baax di leen ziare baax di ziare mboolem président yëpp. Mhm, ñu ngi lay fay bu baax a baax sëriñ. di leen ñaan jàpp di sant yàlla suñu borom sant yàlla mu gën a delloo sant Sénégal jàmm. Mhm, amiin yaa rabbi. dafa xam ko baax kii sëriñ bi wax. man damaa rek mooy ci wàllu ñu leen danañ ko tere duñ ko tere mhm. ñu la am laa ne danañ ko tere rek moom. am nañ ci lu leer la dana dana am lépp lu ñuy wax lu ne lu ñuy laam-laam yoon maanaam lu ñuy mënoon ko ci suuf li gars yi di wax lu ñuy mënoon ko ci suuf lu ne. lu ñuy ruuma naat ci suuf mhm. waaw ndax mhm. dañoo jox dañoo yor koo xamante ne maanaam dafa dem nit koo xamante ne moom man xaw ma ci xelum boppam lay doxee xaw ma lay bàyyi ba nit def wala ba nit ñi wax mu jàpp ci loolu ne loolu lay def mhm. ñaar am na lu jàpp. mu fekkente ne xelum boppam lay doxee mooy am na ñoo xamante ne maanaam da day waxtaan ak ñoom. ñu génn wax waxam te du ko appliqué ko wala muy bàyyi ba nit ñi wax ba pare mu fortaatu ci pour def li war a def. Mhm. ñaar yooyu moom yaakaar na ne am na lu ci am bu ñu demee nag bañ ne nag maanaam ku dem place dañuy tere place yi wala dañ koy tëj loolu moom beneen affaire la ci Sénégal parce que Sénégal tolluguñ foo xamante ni fi ne maanaam. Euh, war nañoo dugal Sénégal ci ci ci ci euh, ci instance maanaam état de séance wala comme ça te loolu bu ko xasee def mooy ñu ngi dugal Sénégal ci point yoo xam ne mën naa dem ba jur lu mel noonu ëllëg. Mhm. mën naa dem ba mu jaadu ñu ne bu kenn kenn ci ndax li ñuy def nii maanaam bu fekkente ne yow booy dox kon kuy dox ku ne wala ngay oto wala nga euh, ngay dox ci mbedd mi tuuti autorisation bu yàgg ñu la mbedd mi du jaar mhm. wala ñoo la bul génne sa wala ñoo la bul génne ci sa néeg comme li Touba wax léegi. Mhm. défense Sénégal daal man dama jàpp ne daal wax dëgg yàlla fi mu toll ñi ko yor ñëpp maanaam ñi ko dalee ci Macky Sall ba ministre bi di gën a tuuti nga xam ni au conseil wala lu mën di doon maanaam yorewuñ ko ci xam-xam dañuy taxaw dañuy làmb. Mhm. kon ñooñu moom wax dëgg yàlla seen capacité war na mën a àgg ci ñuy ñuy ñuy diriger Sénégal. d'accord. ba ca mhm. toppaat mooy maanaam wàllu nu mu koy Mm-hmm. Euh, li nga xamante ne mooy mooy mooy mooy mooy doxalinu dëkk bi. Mm-hmm. rawatina Touba. Mm-hmm. li ci sëñ Mountakha wax daa doon lu leer maanaam yëngu politique ci boppam la bëggatul mu am Sénégal la la bëggatul mu am Touba astafurlah uh-huh. la bëggatul mu am Touba kon yëngu politique maanaam lépp politique da cee nekk. maintenant am na côté yi nañ ko cee génnee parce que. am nañ ci bare bari dégg dégg-dégg bi léeru ci mën nañ cee génne mba wàllu woote bi parce que euh, ñu ci bare bari seen dégg-dégg euh, amu ci amuñ ci yàqin ci ne lii la wax wala loolu la wax am na ci ñoo xam ne xam nañ exactement ne dëgg-dëgg nag moom lii la wax waaye du ñëpp ko xam mais li ma ci bëgg a wax mooy Sénégal Touba ci boppam maanaam kilifa diine yi ñi sës ci ñoom dañ leen dul wax li xew ci biti ndax boo gisee maanaam lu ci bare bari bu ay waxam buy wax da ngay dégg bu fekkente ne lu loo nangoo ci ci làmmiñ lu mu dugg sa nopp da ngay dégg mooy la loo da ngay dégg mu ne loolu yëguma ko woon par mm-hmm. exemple lu mel nekke waa kaw euh, wal fajri dañ mm-hmm. demee di wax dafa ñun ah xamu woon ne nii la ni àgg na fi am na lu bëree bëri maanaam ñu ngi koy yëpp mais nañ ko koy waxee mm-hmm. ak na muy nekkee dadu doon benn yàqu-yàqu yi am ci réew jafe-jafe yi am ci réew dañ daan koy yëg waaye na mu koy yëgee maanaam ak fa toll ak fañ koy waxee ndax day fekk na ko bu yàgg di def. Mm-hmm. maanaam tey bu fekkee dañ ne dañ ne benn kaar lañ taal fekk taal lañ junniy kaar wala ñu ne dëkk sàngam dañ ngay manifesté wu fekk réew yëpp ñu manifesté wu. Touba rek moo jëngu tuut parce que Touba dafa dëkk boo xamante ne si lu ne mën naa xew ci Sénégal ba Sénégal tàkk ba jeex tàkk te Touba du yëngu. Mm-hmm. ndax ñoom ci ndigal la ñuy dox comme li suñu ra li tax Touba wax man mii fa samay samay yaay samay baay samay maanaam mën naa ne man sama bopp fa laa am na solo kon Touba bu fekkente ni loolu am na ci lu mu mën nag xew bu fekkente ne ñi ci sëñ bi di jot ay information yu jóge ci bitim réew waxuñu ko li xew ci dëkk bi du ko yëg. Mhm, mhm. Euh, li ci mooy li nga xamante ne mooy vote yi bu fekkee ne teewe na ko maanaam dañuy dem ba jëmmi Touba bu ñuy waxati ci wàllu kaas ci luy jëm ci droit réew mi maanaam jërtu ñuy wax ñoom parce que bu fekkente ni vote wuñ moom jëruñu bokk ci kaas ndax ku wote yow amoo droit pour kaas ci lu lan nan la réew moo war a doxee wala lan lay doxee wala loolu. Mhm, dëgg la. maanaam bu ñu jàppee suñ jëm yi bopp ji ne ay taalibe léegi dañoo war di dégg ndigal nañuy fexe ba li nga xamante ni moom la ñuy jox ndigal ñuy ki ki joxe ki nga xam ne kiy joxe mooy joxe kiy joxe ma nu ma ko mën ki nga xam ne moom mooy ki war joxe ndigal na ko informé lii xew ci réew mi pour sëñ bi mën cee waxee na mu ci war a wax waaye bu fekkente da ko informé leneen lu waral lii xew. bu boobaa maanaam mën naa wax ba pare wax jooju juraat leneen leneen ci réew effectivement wasalaamaaleykum wa rahmatulah. jaajëf euh, Serigne ñu ngi lay euh, jaajëfal bu baax a baax euh, Moustapha Guèye bul mer Moustapha Guèye maa ngi lay nuyu di la jaajëfal di la tàttake di la jox sa wàccuwaay xanaa léegi kontaan nga nag toogal seetaan émission seen kàddu <laughs> Benasab TV Benasab TV wuy Moustapha Guèye nee na ngeen bàyyi doxaan bi l'heure ngir yàlla déglu leen ko vola mu mel ne am na benn mbokk mu nekkaat ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. maaleykum salaam soxna Diarra ziar nañ la. delloo mbokk mi tur beeg fooy wootee. Euh, ñu ngi ziar ñëpp di di seetaan mhm, bu baax a baax. Euh, li ñuy wax mooy que la gouvernance de Macky Sall est xam nga catastrophique vraiment dañu. dañu mhm. sax parce que toujours même wax yi ngay wax même même ñaxtu yi même même même kaas. Mhm. te xam nga la moo ko waral. mooy que Macky en fait. c'est une en fait bande d'escrocs quoi bande genre mafia quoi gouvernementale parce que c'est genre Macky Sall dañ ko élire moom 26 pour cent la amoon premier tour après coalition bu mu def jël Moustapha Niasse teg koo xamante ni bokk leen idéologie ay intérêt moo leen boole jël Tanor teg jël ñeneen yeneen parti yi boole en fait APR moo existé wul quoi c'est une bande mafieuse bu nekk nii rek di gérer en fait benn regroupement quoi d'escrocs Mm-hmm. moo waral suñu dëkk bi demee nii parce que xam nga quand Macky Macky Sall bu la bu la soxlaa day menacer say intérêt te yow boo xësee ba dugg benn instant au lieu nga liggéey pour peuple wala boog pour développement Sénégal da ngay da ngay da ngay défendre en fait say intérêt mm-hmm. donc du kenn ci ñoom mooy ñu mujjee ñëw ñu njëkk ñëw ñëpp ay intérêt rek intérêt personnel moo leen fa bàyyi te loolu yorul réew mm-hmm. te ils ont fait tant de mal au peuple sénégalais ba dañu arrivé à un certain point boo xamante ñoom ils se sentent en sécurité parce que gis nga jubadi doo mës a nekk ci ci sécurité bu ñu waxee bay dem naan dañuy tëj ay plage par exemple genre parce que seen kër yi mi ngi ci littoral bi littoral bi ñoom ñoo ko lekk yëpp. Mm-hmm. donc xale yi di jege seen kër yi sax wóoluwuñu loolu quoi donc il pense à cette idée là quoi il raisonne nga jàpp que ni xale yi menace lañ ci seen euh, kër yi ni ñuy feesee si place bi noonu. c'est ça quoi ñoom raisonnement boobu la ñu am mais en fait boo xalaatee après loolu décision boobu ban sens la am quoi parce tu te dis que xale yi mënuñu nekk école yi pendant neuf mois stressé jege géej gi war a dem di divertir comme partout dans le monde mhm. tubaab dañuy tëj nii seen liggéeyukaay pendant un mois entier dem ñoom ñëpp ñu tëddi géej yow loolu noonu nga bëgg ko xañ sa population quoi pour quelle raison L'UCAD, mhm. l'UCAD qu'on a fermé là, c'est combien de générations qui vont être sacrifiées? Mhm. Euh, te ñu xam ne Sénégal ñu mën a fay école privée wala université privée pour seen doom yi nekk fa bëriwul loolu yëpp seen jubadi seen jubadi kese il protège des intérêts personnels su ma defee lii sama intérêt dina protéger wu donte sax dix millions de personnes nañ ci loru je m'en fous quoi naa ko def décision yooyu lañuy ñuy jël. Mm-hmm. c'est ça quoi c'est malheureux loolu mooy. loolu mooy Sénégal actuellement. am na solo nag la seule solution mooy nu fi nu fi Macky Sall jëlee continuer à mettre la pression continuer à mettre la pression ba keroog ñoom ñu fiy jóge parce que solution mënutul am ak ñoom quoi. Mhm, mhm. amatuñu issue ñoom ils sont dos au mur dans un impasse. donc du coup nañ ko xamee noonu te xama manipulation beeg mbëri yeeg ñii ñuy dugal yëpp man je ne sais benn Balla Gaye nga jël ko mu ñëw di wax ci télé après xama déglu ko sax yow yaay way di yow mii di ko déglu pas moom li naan man la laa taxaw nii di perdre sama temps quoi. Mm-hmm. dëgg la. Mm-hmm. parce que ñoo xamante ne xam-xama ñoo xamante ne seen poche rek lañ fi nekkee genre noonu la ñuy dundee quoi nañ focus quoi te fàtte fàtte yenn détails parce que manipulation la boo xamante ne amul sens quoi jëmale wuñu fenn. ñoom nañ fi jógee rek après ñu ñu évoluer quoi xool ba xam ni ñu réew. Mm-hmm. beneen bi aussi mooy le cas de Touba. jaajëf en fait Touba statut spécial la. Touba bon dëkk la comme dëkk yëpp mais gis nga dafa baax Touba dafa nekk patrimoine boo xamante ni. déstabiliser biir Sénégal te lool noonu balaa nga ci xam dara nga jël exemple Vatican Vatican xam nga ni Géejawaay moo ko ëpp. Mm-hmm. te gis nga influence bu mu am ci monde bi. Mm-hmm. ba ngay dem Rome dugg biir Rome Vatican genre quartier la rek biir biir Rome fii Italie xam nga tu vois que lii nii lu ndaw la mais influence bi mu am ci monde bi mooy que dañ dañ dañ ko préserver tenir ko comme patrimoine ba yenn problème yu rëy yi amee ci àdduna sax pape bi bu jógee dox ko ñu jox ko cër en fait c'est ça gis nga mënuñu ne Serigne Mourtala Serigne Mountakha day day régler problème Sénégal ba pare après bu ñu jëlee yenn wax yi tam ñu koy ñu koy ñu koy tegaat ci kaw. am na mhm. nga man dama gëm ne bureau de vote bu ñu jëloon ñu teg ko diggante ak asamaan ak suuf sax nit ñi nañ dem vote ji pour Macky Sall jóge fi. Mhm. parce que dafa jot quoi donc amul importance amul amul impact impact bu boobu noonu ci élection yi di ñëw man selon moi. donc du coup manipulation la ak ay coow yu inutile quoi ça nous mène nulle part nañ focus 2024 xale yu gën a tax dëgëralaat seen bopp xam nga euh, injustice bi fi nekk ñu dindi ko mu set quoi. bon mënuñu ko sax dindi si nguuru Macky Sall mais bon ñu xeex ko quoi je veux dire. Mm-hmm. jaajëf jaajëf mbokk mi mm-hmm. merci beaucoup ñu ngi lay bu baax a baax kàddu yi am na solo. Euh, rafet na am na solo ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax 88 628 73 08 99 25 24 02 à 77 914 64 93 su ko defee ngeen daal di euh, bokk yéen it euh, ci waxtaan bi comme nu ma ko waxee woon sànq ñu bamtuwaatal leen ponk yi nga xamante ni moom la ñuy daal di waxtaanee ñeel li nga xamante ni mooy kuréel gi ëmb xeet wi jamono ji ñu toll yi nag loolu nii ñu ngi xam le ni pression bu métti la ñuy teg état wu Sénégal ngir ñu daal di enquête ci manifestation yi nga xamante ni tax na lu toll toll ci fukki nit ak juróom-benn ñàkk seen bakkan dolleeku ci li nga xamante ni mooy lim bi faatu woon ah, ci atum 2021 ah, ci weeru mars mu mel nam na beneen bokk mu nekkaat ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. maaleykum salaam soxna ngi fa mbokk bi tur beeg fooy wootee. bi. d' accord lebal nañ la ko yaa ngi ci jàmm bu baax a baax. oui mhm. ban jàngat nga am ci ponk yi ñu leen daal di indil. bon d'abord euh, si interdiction que proposition. Mm-hmm. Allô. allo. oui allo. waaw yow rek la ñuy déglu mbokk mi. voilà gis nga interdiction plage yi parce que fu mu toll nii gouvernement bi. Mm-hmm. amatul confiance le gouvernement n'est plus serein. gis nga dëkk yu nga xamante ni ñu ñu nekk ci bitim réew surtout côté Afrique yi nga xamante ni fekkee nañu ay guerre civile bu muy commencé nekk ci bu muy jeex ba instant yi on sait comment les choses se passent gis nga rassemblement la ñuy gën a ragal mm-hmm. parce que rassemblement bu bu nekk rek même bu dee ay ñaar nit sax ñetti nit buñ ko gisee dafay dem sax dañuy génnee décret gouvernement bi sa dekkee bañ donc loolu gouvernement bu serein bu bu ñàkk vraiment tranquillité mooy def mooy doxalee noonu mais beneen côté bi safaan bi mooy dañoo nekk di tëj gis nga di créer cocktail molotov boo xamante ni benn cocktail explosif boo xamante ni bu këppee seen kaw du baax parce que dañuy nekk di interdire interdiction yi dafa bëri te interdiction bu bëree ci réew yaa ngi créé beneen situation boo xamante ne après bu ki bu naree daanu sa kaw doo ko doo ko mun doo ko attan. day jur ay frustration. Mm-hmm. voilà doo ko attan. Mm-hmm. moo tax allo. allo ñu ngi lay dégg bu baax mbokk mi. voilà donc loolu loolu loolu du du lu nga xamante ne mooy saafara problème Sénégal instant yi urgence yi dafa bëri. Mm-hmm. loolu la ñu war a toppatoo mais université tëj ko loolu du xel. Mhm. c'est pas parce que lii am na fii nga war ko tëj c'est parce que ñoom du ñu xool seen bopp lépp li nga xamante ni sénégalais ñu ngi ko def ñoom ci seen bopp ñoo war a xool nu ñuy doxalee réew mi mhm. parce que ndoxalin baaxul day pousser nit ñi ci ay réaction yu négative yoo xamante ni da leen di pousser à bout ba ñuy def li nga xamante ni waruñ ko sax def mhm. donc ñun war nañu seetaat nu ñuy doxalee réew mi parce que nu ñu yoree réew mi dara baaxu si dara baaxu si Hmm. daara baaxu si donc loolu war nañ si xoolaat bu baax parce que euh, situation yi ñuy créer nii c'est pas bon parce que da ngay fàtt say waa waa réew di leen fàtt di leen fàtt di leen fàtt di leen fàtt di leen fàtt bu demee yeneen instant gars yi dañuy bëgg a te bu ñuy nooy bu ñuy bu ñuy bu ñuy fippu day métti trop hmm. parce que ñii ñi bu ñuy gën du ñu gën ci benn objectif kii day gën pour lii kii gën pour lee kii la gën pour lii n'est-ce hmm. te na mu xam ni li mu def nii rey ay nit yu bëri famille boobu da leer ni chaque famille bi nga xamante ni rey nga beneen nit bu doonoon ñetti si famille bi juróom nit ñoo fa nekkoon eh, ñeenti yëpp ragal keneen ki gën mu dem gaañu da leer ni bu prochain événement amee kër gi yëppay gën a dem parce que dañuy dem esprit de vengeance. Mhm. da ngay yokk lim bi rek faw yaa ngi rey nit yaa yokk lim loolu la ñu xamul ci loolu mooy conséquence beneen beneen aspect mooy affaire ONU gis nga bu dee ci enquête kesel pour affaire nervi yi dafa yem parce que l'ONU c'est pas une bonne nouvelle dans un pays mm-hmm. bu leen fexe mukk ba ñu ne ñoom ñooy toog di régler suñu problème ñun nañu fexeel tout ce qu'on peut faire pour que suñu mécanisme interne yooyu sëriñ yeeg mag yeeg euh, je ne sais pas les Jamra nañu fexe solution bi nuñ ko nañ ko fexe ñun ñu am ko suñu bopp parce mm-hmm. que l'ONU c'est un grand groupe d'intérêt duñu ñëw fenn pour xool parce que da nga leen neex lépp li nga xamante ni mooy enquêtes yi ñu ñuy def pour def pression gouvernement bi c'est des choses qui peuvent prendre et puis monnaie avec le gouvernement. Mmh. pression bu rëy la gars mën nañ ko rafetlu bu dee ci enquêtes yi kese lay yem mais bu ñu doon mukk ba ñu ne dañuy toog ñoom ñooy régler suñu problème parce que problème bu ñu mënti régler rek ça ça toujours des sources euh, conflictuelles derrière. Mm-hmm. Mm-hmm. dara mënut normal parce que ONU mi ngi fi ñu xam nañu lu bëri ci lu si seen activités yi per la ñu nekk mënuñu wax lépp mais du lépp lu nga xamante ne lu ñuy doxal ci adduna bi moo sinon du adduna bi nga gis nii yëpp di yëngatu te ñoom ñu nekk fii adduna bi di gën di toj nga yaakaar ni ñu ngi liggéey liggéeyuñu ñoom ak nu ñuy yoree adduna bi ak Macky Sall mu yoree Sénégal yëpp benn la. Mm-hmm. loolu rek laa mën a wax donc. nañu bàyyi xel bu baax suñu problème Sénégal boobu fexe leen ba ONU bu mu fa dugal loxoom naan day toog di solutionner suñu problème à notre place loolu hmm. bu ñu ko defee rek c'est très grave parce que pourquoi ñuy pointé wu c'est parce que Sénégal mi ngi dugg ci gestion pétrolière ak gazière. d'accord gestion pétrole gazière bi ñu nekk noonu. il hmm. y a trop de lobby qui qui qui qui pointe te nañu def ndànk ci suñu problème boobu bu ñu leen nangu dugal pour ñu régler suñu problème boobu. am na solo ok. am na ko merci beaucoup mm. jàngat bi am na solo ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax mbokk mi voilà 88 628